yàlla di sikkar fàtte adduna du ñu jégloo ci dara nekk bu béréb boo xam bu duñu jéggi dara lu leen di mën a jégloo ci adduna duñu wax ak kenn a sikkar di sikkar di sikkar bu yàggee baat bi nga xam ne moom la ñuy wax day mujj seen lamiñ mu ne mooy dawal boppam duutu ñu mujj day mel ne maanaam yi rek moo taxaw ci seen ci seen xel ñu ne ba mu xam ne day mel ne dañuy jànloog maanaam yi ba mu yàgg day dal di jekki-jekki fatx gi ñëw maanaam euh, almalakut dal di ubbiku ba ci gisati ci mbiri aduna dara waaye mbiri malakut lépp la ñuy jàllool dañu jàlloog loo xam mahfoos di ko liir di jàlloog roox yi lan bi ay ak awliya yi ak malaayika yi di jàlloog arasa kursi yi di jàlloog yooyu yëpp aarif billahi noonu la saf noonu la wutee ki nga xam ne mooy aalim rek loolu moo tax ñu ne al aalimu duuna ma yaqulu wal aalim fooq ma yaqulu aalim mooy ki nga xam ne jàng na wax yonent bi ak wax yàlla ba xam ko bu koy wax nag na ko yàlla xame ak na ko yonent boo xame bu ko xame moo tax ñu ne la aggul fa mu waxe aalim aggul fa mu waxe wax yàlla lay nettali ak wax yonent bi ak waxi beneen aarif boo xam ne ni mu àggul fa loola nekk xam ko rek la ci am jàng ko mën nañ koo nettali aarif nag la mu gis lépp mënu koo wax ñii sañu koo wax ñii mënuñu koo wax ñii mënu koo wax moo tax ñu ne al aarif fooqa maa yaqul moom kawe na fa muy waxee انت اللي ناخده Mm-hmm. jeex na. Mhm. Mhm. laaj bi borom xam naa dafa yor tuuti ci tasawuf dafa yor asnaf ci tasawuf wala yor na ko boobu baax ndax al fanaaw lay laaj fanaaw maqaama la mu ne nan la mel ak kan moo cay àgg ak ki ca àgg lan moo di aw meloom ak nan lay def ba àgg ca maanaam fanaaw baat bi ci bopp mu ngi tekki ak jeex jeex ci yàlla nan la nit bi jeexe ci yàlla bu dikkee ci fànnu tasawuf mu tasawifoon yi dañoo tëral seen terminologie bopp maanaam seeni mustalahaat ay baat yoo xam ne moom la ñuy tuddee seen mbirum li nga xamee ne euh, muhaat yi maanaam mu nga xam ne dañoo def seen spécialité ci grammaire ñuy tudde ay sujet complément ci complément direct indirect yooyu ak adverbe ñooñu itam seen fànn boobu nga xam ne mooy tasawuf noonu la ñu sàkk seen seen dundale bu bopp ñu sàkk yoon woo xam ne ci la nit ci soobu ba ba muy àgg yoon woowu dañ tuubaa misaal na ko ci xoqal bu kaaw xoqal bu kaaw traduire nañ ko muy traduire misaal ko ginaan boole leen ñoom ñaar képp ku ci jàng français bu baax eh, boo ko gisee da nga gis li ci sëñ Tuubaa wax yoon woowu dañ ko jàpp ne kuy tukki ñu seet ñu war ci kuy tukki yépp yépp ñu war am ñu seet kon kuy tukki jëm ci yàlla yi mu war a am yépp ñi nga xam ne moom la aajowoo fu ñuy jaar nag ca jaara jaar jaar yooyu nag moom la ñu tuddee ay maqaama léegi boo dee tukki dëkk ba nga jëm sori léeg-léeg nga am dëkk boo xam ne da nga ca yendu ak dëkk boo xam ne da nga ca fanaan ak dëkk boo xam ne da nga fay romb yooyu la ñu tuddee ay maqaama moo di ay station yooyu nag ci am ñu tàmbalee nekk mu tëj ba dañu àgg ci tënkiin dañu àgg ci tënkiin nga xam ne fa la maqaama yi jeexee ay maqaamaat la maqaama yi fanaaw ci boppam pour ñu misaal ko fanaaw bu ñu ko bëggee misaal wax nañu ne nit ci tasawuf ki bu sóobe yoonu tasawuf am na lu ko tasawuf sant mooy bàyyi lépp luy àdduna bàyyi aada léegi mu ngi xiifal boppam ci koor xiifal bi xiifal boppam day lettal jëmm ji nga xam ne mooy yaram ni ngir bi dimbali bi lettal boobu mu koy ci néewal lekkam néewal ñelewam ñëwal jaxaso nit ñi bari tuddu yàlla bari boru bari xalaat maanaam di yéeg di xalaat yàlla bu saxee ci loolu war naa am ku koy wommat ku koy wommat moo koy def muraqaba maanaam moo koy suivre ñi nga xam ne médecin bi noonu lay suivre malade bi bis bu ko yokkuloo ni muy sikkar mu yokk bis bu ko wàññiloo mu wàññi bis bu ko noppuloo mu noppalu bu ko santee jëf ndax day jànloog xol bi xam yan ayiba ci nekk bu fekkee ne ci réew ko yàqal am na jëf bi ñu koy sant joo xam ne mooy dindi rëy bu fekkente la am na jëf xam ne bu ko defee mooy dindi tayeel fekkee ne bëgg adduna la am na jëf bi ñu koy sant joo xam ne mooy dindi ci moom bëgg adduna bi bu fekkente ne ci añaane na ci moom am na lu mu koy def loo loo xam ne bu yàggee mooy dindi xam ne jàngoro xol la bi doomu aadama di amee ki nga xam ne mooy cheikhul murabbi bi buy tërbiyee nit ki àdduna ci xam-xamam bu ko ne jàkk rek suñu dolli koo dana ko xam suñu wàññi koo dana ko xam jàngoro ji ci moom dana ko xam dana xam la koy dindi bu ko defee daf ko koy sant mu def ko moom murid boobu maanaam taalibe boobu nekk ci yoon tasawuf nekk suñu boobu mu di ko teqantal day dem di dem ba nga xam ne xam nga am na lu ñu tuddee al xalwatu ak al jalwa dafay am jamono yoo xam ne daf koy sant wéet wéet li ñu tuddee ak xalwa wéet mooy njëriñam ay relation ak nit ñi mooy rompre itam ay attache terrestre am moo koy taxa itam euh, daf am familiarité ak yàlla suñu borom tabaraka wa taala ndax dañuy wax jekkeyaale ak yàlla mooy lan mooy muraqaba mooy di ko fuglu ba mel ne yaa ngi jàngal moom loolu la ay séance la ci am yu yu yàgg yoo xam ne yu bari da nga koy wéet te doo wax ak doomu aadama doo gis doomu aadama da ngay nekk ci foo xam ne fii yow rek a fay nekk tudd yàlla bi ñuy tudd saxoo ko dañu wax ne ci ihya ulul dinin sëñ bi wax na bu salikul jinan وقال في الإحياء خذ تبييني إن نهاية ثمار الدين في هذه الدنيا حصول المعرفة والأنس ذكرا بالإله فعرفة من دوت نية الدين في أدنى جي في دوم آدم ما حصول المعرفة خم يالله ak ñett li ko ñu xam yàlla ci yàgg koo xalaat yàgg ñëpp di xalaat nga koy amee nit li ko yàlla itam ci yàgg tudd yàlla maanaam sikkar nga fay amee nit ki bu fekkee ne nekk na ci yooyu ba nga xam ne tàmm na ko ba tàmm ko ba nga xam ne dootu mën na toog ak nit ñi dootu mën na lekk ba suur dootu mën na nelaw ba màndi yenn yu bari nga xam ne léegi aada jooju dañ na ci moom nit de xarfal aada fi bi tarfal aada maanaam pour nga mën a xar baax faw nga bàyyi aada xar baax ci bàyyi baax da ngay bàyyi baax li nit ñi baaxoo da nga koy bàyyi di def wut sa beneen baax moo tax ñu ne balay kenn ak bu day judduwaat judduwaat mooy léegi da ngay judd beneen judd mooy yaa ngi dund yeneen façon dundin di jëfe yeneen façon jëfin am yeneen i àndaale am yeneen i ñett li ko waay yu bokkul ak yi nga xam ne moom la nga amoon yu bokkul ak yi nga xam ne moom la nit ñi amee loolu boo ci demee da ngay dem ba nga xam ne da nga mujj dara dootu la saf lu dul yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na waxtu woo xam ne ne amul dara lu ma sa mën a xajoo lu dul yàlla nit ki day dem ba dootu xajoo dara dara dara lu dul yàlla foofu nag man na ñetti étape yoo xam ne mooy ñu gën a gàtt buñ ko misaalee mooy aynul yaqin ilmul yaqin xaqul yaqin ilmul yaqin ci misaal moom la njëkk a jaar ilmul yaqin ci misaal mooy lu mel ne tey nit ki wax nañ ko suukar ne ko lu weex la lu ma ne dëgg lay doon dafa neex ci jëmm boo ko defee ci ndox mu seey ba wax la melal suukar yëpp ba mu daj nga xamee ko noonu waaye mosuloo gis suukar kooku mooy ilmul yaqin wala ñu ne la safara dafay leer da ngay indi lu ne lu mel ne ban moom lay tàkkal waxtu wi ci jotul lu taal day fay dafa tàng nii la mel nii la mel ba nga xam ne xam nga ay mbiram yëpp waaye gisuloo ko kooku mooy ilmul yaqin ilmul yaqin boo ci àggee mooy léegi su ko fi nga doon wax dem nga ba gis ko gis na ko ba ñu saf la nga xool ko gis ne dafa weex nga làmb ko gis ni mu dëgëre mooy safara yooyu dem nga dëppiin ko gis ni mu leere nga laal ko sa loxo mu lakk la nga xam ni mu mel kooku mooy xaqul yaqin da nga woo ba nga dem ba ci mu foofu mooy ay mbir yàqu xàq yàqu doo ca àggee lii mel na tey ci safara yi dañ laa fab sànni ci sédd bi safara yi tàkk safara féetale kaw féetale suuf féetale ndeyjoor féetale càmmoñ féetale kanam féetale gannaaw foo làmb doo daj jubul safara foo xool doo gis jubul safara wala ñu sànni li ci géej gi ndox mi féetale wet bu nekk foo xool doo gis lu ndox loo làmb doo daj jubul ndox kooku mooy fanaaru ki nga xam ne dem na ba gisatul lu ne si gisatul dara nga xam ne ñu ci nuur ci ci géej gi lu ci labe nga xam ne boo ko laajoon loo loo daj mu ne la ndox loo xam mu ne la ndox lu ne ci sa kaw mu ne la ndox lu la téye mu ne la ndox ana lu def ci digël ñu wara ndox do do gis borom ñu ndox mu fanaaw fanaaw muy nga xamne agna ci bu mu xaté suukar bu sax dara bu mu xaté kaari bu sax dara bu xaté loxam tekku safara du ko lak mu ngi sax do do yëbati dara ko moy ag ci fanaaw bu yagge ci fanaaw bobu nak amna ben maqam bo xamne moko fété ko bu yagge fanaaw moy bu yagge ci fanaaw bi yagge ci bi yagge ci yagge ci bi nga xamne nit ki dafa ñu ndox mi dama nga jëm legi nga xamne nek bi mu nek ci biir ndox mi du tax muy fëkkati du tax mu télé may du ko indil ben coono du ko indil ak yene du ko ray du ko nga xamne bu gënal ndox mi nag daal di am fitna dootu bëgg a dund dellu ci ndox mi